salaamaaleykum wa rahmatullah patriote cher patriote maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare di leen jox seen wàccuwaay di wax ne maa ngi wax président Ousmane Sonko président Diomaye Faye ministre Cheikh Tidiane Dièye bàyyi leen wax ne nguur si na ngeen ko bàyyi xel nguur si muy wax Moustapha Messere na ngeen ko bàyyi xel na ngeen ko bàyyi xel mi ngi kaas groupe yi ngeen jënd mi ngi kaas ndoxum Touba mi ñëw da koo naqari ndoxum tuubaa mi tàmbali da koo naqari parce que ci doomi xaraam yi doon saboté Touba ci la bokk te mu ëppoon ci aw làmmiñ mi ngi mi ngi mi kaas groupe yi ñu indi mi ngi kaas ndoxum Touba mi mi ubbi ñeme naa bàyyi ba guddi mu ànd ak i sàmba yàq te groupe yi na ngeen ko bàyyi xel na ngeen ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax a baax te damaa jàpp ne Touba ñin fa war a njëkk a génnee bu ñuy génnee ñi ñi génnee dañ leen a yab Touba ñi ñuy génnee dañ leen a yab Moustapha Mazare ci ñin war a njëkk a génnee Touba ci la bokk bu dee jikko ju bon la ñuy xeex parce que góor gu ne leen leen di xeesal di day jëfi jigéen kooku waroo amoo place Touba beneen bi topp ngeen nekk ci nguur gi lànk ba ñu jënd ay groupe ba ñu taxawu Touba ci ndox mi ñu ñëw tàmbali koo def ndox mi di xelli mu lay naqari yow ab xaj dëgg nga xaj sax gën xaj dëgg nga xaja gën mais gis nga réew mi dañ koy liggéey te gis nga euh, lii ñu liggéey nii ku ko saboote ñu lakk salu bon lu leer laa la wax ku ko saboote ñu lakk salu bon sa bëb bi mel ne soorol doomi xaraam